Rewmi FM Dakar 97.5 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu également internautes yi nga xam ne ñoo ñuy suivre via Rewmi TV surtout si suñu chaine YouTube bu Rewmi TV officiel ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax yéen ñi ànd ak ñun chaque samedi. de 10h à 11 ci seen émission euh, sociale toute la ville en parle tey ji nag euh, ndey Comba moro daal di euh, dalal ci seen émission sociale toute la ville en parle Assane Diop Assane Diop nekk coordonnateur départemental bu Pastef Rufisque nekk premier adjoint au maire de la ville de Rufisque ñu fas yéene aborder actualité bi jëm ci wàllum politique parce que gis ngeen ni fan yi arrestation yi bari na trop surtout si côté Pastef ñu ñu bëree bari actuellement Euh, ñi ngi ci biir kaso bi dinañ ko aborder euh, dinañ aborder également euh, coowal troisième candidature bu président Macky Sall aborder naka la Pastef di préparer élection présidentielle bu 2024 surtout que le candidat Ousmane Sonko seen candidat en tout cas fi ñu toll nii pour mu bokk ca élection yi dara wóoratu si parce que gis nañ ni am na dossier ak Mame Mbaye am dossier ak kile di Adji ak yeneen ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi. bi dinañ ko aborder ak suñu invité bi di Assane Diop Assane Diop maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Ndeye Comba euh, di la nuyu bu baax euh, di la remercier également ci invitation bi je pense que bi mooy sama deuxième fois mooy ñëw fii ci Rewmi TV. Rewmi TV voilà di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan. Mhm. Euh, di nuyu bépp patriote bépp citoyen di massawu également sénégalais yi ci li nga xamante ni moom lañ nekk di dundu mhm. muy ñi nga xamante ni jël lañu leen di leen dugal ci kaso bi ci ay caaxaan ñu ngi masawu seen waajur yëpp di masawu képp koo xamante ni jege na leen. Mhm. voilà kon mu ngi noonu Assane Diop xam naa waxtaan bi tey du yomb la dernière fois suñu waxtaan bi tàngoon na <laughs> trop en tout cas tey jii laaj bu njëkk bu ma lay laaj nga bokk ci parti Pastef euh, tey jii comment se porte le Pastef. bon d'une part je vous dis que mhm. le Pastef se porte très bien. Mhm. Euh, dans la mesure u mu ngi continuer di wéyale ay activités am mhm. euh, ñi nga xamante ni ñoom la yàlla takkal ndomba tànk ñu nekk ci institution mhm. euh, collectivité territoriale yi ñu ngi continuer di doxal seen programme mhm. politique ku ci mel ni Ousmane Sonko. gis nañ ko lu yàggul dara bërki dem fële sa jigéen soor mu ngi lancé ay projet yi nga xamante ni moom la bëgg teg ngir jigéen soor jëm kanam lu toll ci ay douze projets ak ay ñeneen ak ñeneen biento bientôt euh, li suñu wàllu politique li nga xamante ni mooy suñu programme di nemmeeku tour mhm. planifié nañ ko war a dem ci semaine bii di ñëw fële ca département Tivaouane mhm. kon mën naa ni Pastef se porte très bien parce que mu ngi wëy di doxal ay activités am ay baneen bi mooy mhm. Pastef euh, d'autre part commencé na di subir ay jafe-jafe te dara waralu ko lu dul ay caaxaan ndax lu ëpp ci ay ndawam mhm. lu ëpp ci ay responsable ay mhm. responsable am mhm. jël nañ leen tëj leen ci kaso bi ci loo xamante ni teguñu ko fen ak ay sympathisants ba chaque jour boo xoolee visites yi muy mardi muy jeudi prison yi dafay fees dell nit ñaa nga fay dem di leen nemmeeku ñi tëj seen i bureau ñi tëj seen i kër ñi tëj seen i euh, place jaayukaay ngir dem di nemmeeku nit ñi massawu leen pour jéem leen ñaax wan leen ni fañ leen dugal. Mhm. sàccuñu fenuñu defuñu lu bon et ñu jéem a am dëgër laay tuut te incha allah loolu dafay dakk mhm. ndax amul benn injustice buy wéy. mais tey ji Assane boo ñu doon wax. parce que ñi ñu jàpp Pastef bari na maa ngi lay tooñ léegi sax bi nga mm. yegg see ma ne la xanaa Pastef yow rek yaa fa des mais ñi ñu jàpp Pastef bari na maanaam tey jii lu ñuy wax moteur Pastef ñu si bari bu weesoo Ousmane Sonko ñu si baree bari ñoo xam ne même ñi nga xam ne ñoo doon def xawma di dajale xaalis beeg yooyu pour mm. yenn activité Pastef yi sax mm. ñoo ñi ngi si kaso bi actuellement ñaata membre Pastef la la ñu tëj ci kaso bi ñaata est-ce que yéen évaluer ngeen lim bi fi mu nekk mën naa la wax ni mhm. trois cent cinquante cinq otages politique la am Pastef waaw waaw waxuma waxuma ay yeewi de Pastef déjà xam nga ñëpp mhm. mën nañ leen réclamer de mhm. Pastef am na ay sympathisants am na ñoo xamante ne ay responsable Pastef lañ bu ma leen lim tey jii fii duñ fi jeex duñ fi jeex parce que ñun militant ba dëkk fongole mi ki gën a ndaw mm-hmm. on le considère comme un responsable mm-hmm. donc on considère que ñëpp ñi nga xamante ni téye nañ leen ce sont des responsables Pastef te du loolu moom mooy arrêté mm-hmm. te ba léegi pareeguñu parce que nous sommes tous en liberté provisoire ndax réew mi nga génn xool nit xool bu la neexul sax xool bu ko neexul sax mën nañ la mën nañ la tëj te du dara dara dara du ko justifier beneen bi mooy ñi nga xamante ni ñoo daan dajale suñu xaalis. Mm-hmm. Ah, mais ay Kopar Express mais arrêté wul. Mm-hmm. lu yàggul dara jaay nañ cent mille brancé bracelet. Mm-hmm. am ci cent millions te beneen loo bi mu ngi mu ngi dugg si. patriote bi gën a ndaw entre guillemets buñ ko joxee programme boo xamante ni c'est relatif à la mobilisation des ressources financières da koy doxal. kon amul ku mën a téye dynamisme Pastef damay wax rek li Bassirou Diomaye Faye doon wax. bi ko koy invité Walf. mu ne Pastef ki koy dissoudre kiy arrêté projet la mère de sa maire ne pas encore née. Ah dañuy sonnal seen bopp. Hmm, Macky sañ na ko de. na ko jéem am na doole bi de. waaw na ko jéem. Hmm, instant mayu leen dara de. ñun aussi ñu ko dara. Hmm, parce que gis nañ Sonko sax léegi mi ngi commencé di reculer. non reculer wul. en politique il y a des temps Ousmane Sonko reculer. mais politique dafa am ay temps daa am période bu nekk ak li ngay def. dañ ko jox municipalité mu koy gérer moo ngi ci lu yàggul dara joxaat nañu rendez-vous ne bientôt dina communiquer ak ñun. Hmm. Ousmane Sonko mësul reculer. Hmm. après dinañ si ñëw. Uh-huh. mais tamit euh, est-ce que tamit seen affaire Kopar Express yooyu euh, doo ñu si indil ay leeral am dem nañ bay wax ni sax dafa am ay blanchiment d'argent dafa am yu bëri yu làqatu si biir. ba ndax ñi si nekkoon ñu jàpp leen. comment ça se passe procédure bi naka la doon demee voilà ba ngeen dajale. xaalis euh, Kopar Express ab ab hmm. ab. application bu bu bu fiable la. waaw ñu jël ki nga xamante ni actionnaire la ci. Mhm. damay fàtte tur bi euh, indil ko problème. Mhm. tëj ko. Mhm. ki nga xamante ni mooy Hannibal Jim kooku dafa newoon un acteur boo xamante ni nit ñi dañ koy déglu mu am audience ci réseaux sociaux yi comme ni ko Ousmane Diagne amee ak keneen ak keneen amee Kopar Express lépp luñ ciy def dafa fiable état bi mën na jël topp procédure bi parce que. Mhm. orange mais lu tax Wave ak mhm. Orange Money indil lu leen problème te pourtant pour nga dugal sa xaalis ci Kopar Express da ngay jaaree Orange Money wala nga jaaree Wave. Mhm. wala ay yeneen application lan moo tax Kopar Express kese. c'est parce que dañu bëgg a casser suñ pour xoj ñu ba duñu mën a mobiliser parce que dañu jàpp ne foofu la ressource yi di ñëwee mais mënuñu ko tere tey jii kon kon affaire blanchiment d'argent ban <laughs> amul hmm. li ñuy wax amul mouvement kacci kacci mooy lan tamit aussi non mouvement kacci kacci xam tamit Assane Diop yéen non xam nga mouvement kacci neexul setal daal non <laughs> neexoo leen jàppale yéen waa mais mouvement kacci kacci waaw du passif waaw xam nga mouvement kacci kacci waaw nu mu demee xam nga xam nga Macky Sall moo doon wax ni mhm. la la puissance du du du du comment dirais-je du du du du du flic et du fric. Mm. fera face à la seule puissance du. kàcci kàcci voilà. waaw booy daal ñëw tegal ko. Mm. parce que bi mu ootee jam ñaajo. Mm-hmm. je pense di wax ak ni ñi ne chaque jour ñu ngi nekk seen ordinateur di kàcci kàcci. booy inspiré aussi. Mm-hmm. woon que ni kàcci kàcci boobu liberté la. Mm-hmm. c'est une liberté d'expression. tuddee ko mouvement kàcci kàcci. maanaam lu naqari Macky Mm. neex na leen neex na leen waaw loolu nag munoo ko jël nga ni nga ni patriotes yi Pastef moom moo lancé loolu yow mm. mosoo ko mm-hmm. mais ce sont les sympathisants des mmh. citoyens sénégalais yi nga xamante ne dañoo doyal ci Macky Sall mm-hmm. di exprimer seen liberté d'expression léegi bi ñu tëjee Kopar Express léegi yéen si bracelet yi ngeen ko àpp wala fan la Pastef di jëlee ay ressources am encore pour seeni activité li li li ñu li ah. ñu yoon may rek ci parti politique waaw ak cotisation. Hmm. loolu la ñuy continuer di appliquer bu ñu paree ci blessé yi mën nañ ñëwaat ci leneen ak mën nañ ñëwaat ci leneen jaay lii jaay lee. Hmm. mobiliser lépp loo xamante ni yoon may nañu ko. askan wi daal ñooy liggéey di verser Ousmane Sonko. muy def ay activités mais c'est très normal. Hmm. c'est pour que ëllëg. waaw benn lobby bañ a ñëw di ñu xoj. loolu yàgg na fee am. askan wi di liggéey di verser. mais yàgg na fee am c'est parce que li ñu gis. la ñu mësul gis un leader politique boo xam citoyen yi dañ ko gëm. maire bi nga xamante ni mu ngi toog buntu këram jaay gerte caaf wàccee mille francs mhm. patriote yi romb mu ne leen am leen 200 francs yi génn ci lu toll ci deux de ci ci 20 pour cent ci li mu am bénéfice am. Mhm. ko ci participer loolu kenn mënu ko kenn mësu ko gis c'est parce que population bi dañoo am confiance. dañoo bëgg Sonko daal dañoo am cofeel ci Sonko dañoo am cofeel ci am confiance ci projet Pastef xam ni kii nii rafet nañ njort ni mhm. mën na teg ci Sénégal. ci ci ci yoon bi nga xamante ni moo jëm. ci def moo jëm mais est-ce réew mi du ngeen décevoir. askan woowu di dajale seen xaalis ñenn ñi nekk bitim réew si sedd bi di dajale di envoyé voilà pour les activités de Pastef est-ce que tey jii bu ngeen jëlee réew mi du ngeen leen décevoir comme les autres politiciens xam nga xam nga sénégalais yi mhm. seen xel lañ yor di xalaat sénégalais yi dañoo yeew mhm. ñun tëbuñu tëb nii rek euh, toll fi ñu toll mhm. bi ñu yow bi may invité fii Pastef ak bi ak bi ma fi ñëwaatee tey nii xam nga ni changement am na. Mhm. suñu courbe d'adhésion va toujours crescendo. Mhm. ba ma la doon invité kii nga woon léegi premier adjoint maire nga. waaw kon nga <laughs> gis ni <laughs> defuñu fi loo xamante tey jii. Mhm. Euh, euh, population bi dañu koy dañu koy xeebee. nit ñi boo leen doyee sénégalais développé rek la bëgg. jeunes yi liggéey la ñu bëgg. dañu jàng am bac jàng économie jàng science. avec les nouvelles l'avènement des GAFA Google Amazon Facebook ainsi de suite mhm. information bi di jàll ñëpp xam fan la réew mën a tegu pour développer ñu continuer bëgg a noot sénégalais yi di leen di leen di di di leen dévier bëgg tëj seen xel pour ñu bañ a réfléchir. mais yéen dama ne Sonko est-ce que du décevoir. noo xam nga Sonko du décevoir. askan wi bis ñu ko joxee réew mi. dama ne la parce que dañoo sonn si xaalis yeeg yi ñuy dajale di joxe rek. Hmm? parfois ñu ne leen sax yalwaan ngeen. gis nga gis nga gis nga kiy falu. Hmm. yàlla moo ko xam. Hmm. Sénégal fi mu jëm yàlla moo ko xam. nit ñi nañu rafetee woon njot ba jële fi Ablaye Wade fal Macky Sall. noonu la ñu rafetaatee njot bu bëgg a jël Ousmane Sonko tekk ci réew mi parce que dañoo am yaakaar ci moom. bis bu demee ba décevoir leen population bi am nañ fulla jëlee ko fi c'est comme si c'est ainsi la vie se passe. n'est-ce pas. Mm-hmm. mais ñun suñu programme duñu mës a des décevoir sénégalais yi te chaque jour toog nañ ji leen ko wan ñoom aussi ñu ñuy gën a wan confiance donc suñu confiance entre le parti Pastef ak la population toujours dafay gën di sele mm-hmm. mais nag nguur gi ci benn dynamique la ne diviser pour mieux régner d'où cette fameuse phrase du président de la République Macky Sall man xam naa après loolu dinañ ci ñëw. Hmm. boo ne je vais réduire l' opposition. Ah, à sa plus simple expression. ci la ne de. waaw mais logique boobu jugu ci. ci la ne moo tax naxuñu kenn gis nga hmm. kuy sàq bi. Hmm. te dara newul sa gémmiñ naxoo kenn sa bopp ngay nax. Macky loolu si la nekk de. en tout cas euh, tamit tamit waa Pastef euh, li ñu leen di tuumaal dafa bari daal li leen nguur gi di tuumaal wala justice ay cocktail molotov yu ngeen di defar di préparer ay manifestation ay saboter terre bi ainsi de suite loolu lan nga siy tontu. non man gi man gisuma ko cocktail molotov. waaw yi ñuy wax man gisuma cocktail molotov musuma defar cocktail molotov. te gisuma patriote bu yor cocktail molotov. loolu mais ñu ngi koy taqal à chaque na fi wax na ko mais ñoom ñoomi neen la ñu affiché ay diviser pour mieux régner ci logique boobu lañ nekk mhm. logique gu dissoudre euh, diviser l'opposition logique gu dissoudre le Pastef mhm. te nous c'est ce qu'on a compris maintenant ñun ñàkk ñu fayda booy toog di xaar ñu ñuy nasaxal di ñu suul lépp loo xamante ni yoon daf ñu ko may dañ koy exercer mhm. muy résistance loolu yi ñu ni mais amul yow mosoo see bokk. préparé ay booy dugg si internet bi voilà rassemblé booy. Mhm. mosuma gis cocktail molotov. Mhm. xaw ma nuñ koy préparé. Mhm. li ma mën a wax ce régime présent. ce régime finissant. mooy ñun suñu parti ak suñu lider du ñu nangu kenn di ko caaxaane. ci ay yoo xamante ni tegul fenn. yoon nag moo ñu may ne bis bu ñu demee bay salfaaña say àq ak say yelleef nanga nga résister. ci loolu lañ nekk di def. yeneen yi ñu ciy wax nii yëpp ay caaxaan la jël Bassirou Diomaye Faye denc ko ci kaso bi. Mm-hmm. ci loo xamante ni yow xam nga li mu def man xam naa li mu def. ñu ne ko mm-hmm. mandat de dépôt. Mm-hmm. ci ban ah, ci ban Diomaye tamit neexul jàppale xam nga toog ci internet bi di yàq lu mel ni. ci ban les magistrats la justice sénégalaise. est-ce que tamit. wa ah. fii waruñu critiquer que ni waruñu critiquer kenn. Mm. yéen journaliste waruñu leen critiquer waruñu critiquer enseignants yi. mais avec la manière waruñu critiquer mm-hmm. keneen ak keneen. mais mais yéen waa Pastef da ngeen radical de trop. ni ngeen koy defee maintenant maintenant mm-hmm. deux poids deux mesures bi yow lan nga ci wax. là où on a mis Diomaye. Mm-hmm. derrière les barreaux et d' autres patriotes d' autres journalistes. on laisse d' autres sénégalais appartenant à ce régime errer. vaquer à leurs occupations. Mm-hmm. ñaar rek ci cité. Mm-hmm. Ahmed Suzanne Camara ak sa ministre. Mm-hmm. Pape Malick Ndour Pape Malick Ndour ñoo fi taxaw wax ay kàddu yu yu yu yu doy waar yoo xamante ni à la minute dañ leen waroon fekk foofu jël si leen procureur déglu leen Ahmed Suzanne Camara dañu Ousmane Sonko buñ ko mënee rey nañ ko rey nañu taal këram ba taalaale ko moom. Pape Malick Ndour ne dina mobiliser 5000 jeunes ñu dem déloger Ousmane Sonko. Ah. kenn pipewul moo. mais mais nag euh, euh, Assane yéen a wax gatsa gatsa n'est-ce pas sa leader moo woote gatsa gatsa. mais mais lan mooy gatsa gatsa. Macky Sall ngay wax ak institution le président de la république daf ñuy faat wala ñu faat ko est-ce que kon Macky dina xaar ku ko faat. non dama balaa ngeen koo faat mu dal seen kaw. non lan mooy gatsa gatsa. Macky ko woo euh, kii Sonko moo ko woote gatsa gatsa ci français mooy œil pour œil. dent pour dent defante ba mu saf saf. dama lay dama lay wax benn affaire. waaw nga gatsa gatsa boobu da ngay xool fi mu jugee. waaw lan moo tax ñu avancer propos yooyu. Mhm. c'est parce que dañoo subir pendant très longtemps hmm. ñun lañ fekk suñu siège saccagé ko agressé ñu ñu porte plainte mujjul fenn ñun la ñu rey suñu Linguère Mariama Sagna hmm. à la fin d'un meeting politique mujjul fenn ñun la ñu fekk yaay Ousmane Sonko Ziguinchor gendarmerie fekk ko fa pour jël ay parrainage hmm. mujjul fenn yaa ngi may dégg ñun la ñu fekk ñuy def suñu nemmeeku tour mhm. ñu ñuy topp mhm. ñun lañu fekk ñuy campagne ñu agressé ñu mosoo dégg Pastef mhm. def nu ni mel mais ku yàgg ci loolu nag mais ku bëgg a dee wéqu loolu mooy gatsa gatsa mais œil pour œil dent pour dent mais œil ak ki nga tollool doole déet peut-être loolu moo leen Assane li ngeen di dund ni yëpp loolu moo leen ko yóbbee parce que boo ñëwee parce boo ñëwee nekk picc <laughs> taxaw si kanamu gaynde ne ko garsa garsa mais gaynde bi da lay coog nga disparaître peut-être c'est votre cas avec le président Sall dama ni waa mu sax waa boo ko fekkee ci biir kaafam waaw dàq ko mu daw jaar na le jaar fële nga dóor bu demee ba sës amatul lu muy def lan lay def dafay ñëw taxaw riposte song la lu mu mënti dool am jël waaw lu mu mënti dool day riposte ñun mm. foofu lañ tool mm. loolu mooy gatsa gatsa du leneen. mais nee nañu gatsa gatsa bi massa massa la la mujjee de. ci naka seen leader. ci naka ah, seen leader bi feebar. feebar ah, oh, mais bien commencé mais bien sûr. masta masta euh, ni gis nga keroog procès bi ce qui s'est passé. qu'est-ce hmm? non maanaam li mu wootee. def hmm. naa sama testament. Mm-hmm. dem naa sama yaay ñaanal ma mhm. sama papa def naa sama testament Macky daf ñuy faat wala ñu faat ko waaw waaw mais maanaam propos yooyu mu tëni la mujje da ngay déglu ah waaw ana ana Sonko du ma ngay ma ngay mu ngi keroog procès bi moom maa mbay ñaa fan la mujje déglu ma rek docteur yi di ko xool mu ne dafa feebar ba mënul eh, kii kii si procès dama ne la waaw Ousmane Sonko ana mu tey ji mu ngi méeréem di liggéey muy continuer di vaquer occupation mhm. ñoom seen objectif lenn la mhm. Pastef bañ a existé ti tëj son Sonko. Mhm. wala rendre ko inéligible xam mhm. nga bu ci mënti doon. Mhm. mais iné inéligibilité Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko ci kaso bi loolu du luy mën a ne fii ci réew mi ñoom ñoom ñoo la gën a xam loolu. yaa ngi may dégg. moo tax boo nee ma gàtt gàtt massa massa la mujjee man daf may jaaxal ñoom kay nanu dem ñu jël ko dugal ko ci kaso bi. Mm, loolu weesoogul de. ah mais ñu ngi xaar. mais tamit Assane est-ce que dëgg-dëgg yéen tiitoo leen ni euh, fi ñu toll nii nguur gi pare na pour teg lépp dissoudre le Pastef parce que yéen yi ñu leen di taqal. dem bay laal affaire terrorisme dem bay laal yenn yi ce que yéen tiitoo leen ni actuellement la dissolution de Pastef lu mën a nekk dara waaw xam nga bu fekkee dañu am seen objectif nous aussi on a notre objectif mhm. chaque jour damay indi vocabulaire bi ma lay wax daa am loo xam constitution moo ñu ko may waaw mooy ñu résister ku bëgg sax Euh, salfaañu suñuy àq ak suñuy yelleef. Mm-hmm. bu ñu nekkee ci seen objectif nous aussi on a le droit de résister. de résister lu ñu ko. mais lépp loo xamante ni nag lu ñu yoon may la. Mm. mais mais actuellement question bi mooy comment protéger le Pastef. comment protéger ce Pastef. le parti le parti mooy continuer di vaquer pour ñu bañ ko tas en fait. pour ñu bañ ko tas du dara lu dul nga nan lañ koy tase. naka ngeen di résister. ci lu ñu yoon may. si lan la leen ah, yoon may bu ñu fa eggee dinañ xam. mais Assane nu ngeen di résister. buñ fa eggee jàppale hmm? booy dissoudre parti dafa am foo koy teg. yéen tey jii bu. booy dissoudre parti ko kii kenn du yëngu kenn du bouger si dëkk bi. kenn du naka ngeen di. résister kan mooy def loolu marché yi président nee na dootu fi amaat. donc dama ne naka ngeen di résister la résistance boobu ngeen di woote pour protéger le parti Pastef naka ngeen ko fas yéenee def non droit de la résistance. ni ñuy résister bis bu jotee dinañ ko xam. Hmm. événement mars am na lu fi jot a jaar. ñu fekk Ousmane Sonko bëgg ko yóbbu këram. ñu ne dootu fi amaat. amu fi. jël nañ ko yóbbu section de recherche waat nañ ko këram. Mhm. yaa ngi may dégg. Mhm. projet bii passé. Mhm. am na lu ñu naroon defuñu ko bàyyiwaat nañ ko mu dellu këram. loolu yëpp li ko waral mooy on a xanaa si internet bi ngay résister. non nu ñuy résister moom xam nga. xanaa si biir internet bi ngeen di. résister Assane yow tamit on a résisté. bi événement masse amatu fi. nous daal on a résisté. waaw on a résisté. et on l'a laissé vaquer à ses occupations yi mu delluwaat. Mm. gis nga élection yi. Mm-hmm. amul lu ñu ciy teree bokk. kenn moo dul bokk fii ci élection yi muy le président Macky Sall. moo tax dialogue bii ñuy wax. du pour mm. moom. si laa jëm si pour la population. si laa jëm si woon sax si mm-hmm. troisième ñëpp a ngi koy waxtaanee ba léegi waxu si mais ñëpp ñi nga xam ni ñoo entouré le président Sall. Mhm. Euh, ñoom daal samp nañ président Sall ba pare pour mu bokk ci élection présidentielle bu 2024 yéen Pastef yéen ban doole ngeen am euh, pour si jamais président Sall ne je suis candidat ngeen ngeen ngeen taxaw si wetam baare ko est-ce que yéen am ngeen ko kii yooyu doole bu ngeen di baare la candidature de Macky de un côté boobu mhm. candidature Macky Sall mhm. du sax Pastef moom mooy taxaw jàkkaarloog moom. askan wi la. muy yow les journalistes. Mm. ñiy jàngale ñiy jaay bépp citoyen sénégalais mooy taxaw fair face à Macky Sall. Mm-hmm. parce que dañoo am loo xamante ni ñun ci lañ sukkandiku muy la constitution ñu réviser ko dem ci article vingt sept xaatim fa lu leer nañ nul ne peut plus de deux mandats consécutifs. moom Macky Sall mu taxaw leeral lool joxe kàddoom ne du def deux mandats parce que constitution bi leer na bu ko ko kenn laajati nit ñi war nañu arrêté di ci épilogué mm. ay ténoram dem ci tele yi wax ko fu ne mm. ur bi or bi booy Mimi mi mujjee génn Seydou Gueye déglu nañ ko émission TFM mm. mu ne loolu jarul nit ñi di ci épilogué quand une loi est claire Mm. dañu il faut l'appliquer on ne doit pas l'interpréter ne nul ne peut plus de deux mandats consécutifs loolu dafa clair dem ba ci ne moom Seydou Guèye de ne en légistique maanaam l'art de d'écrire des lois quand il y a la forme négative loolu jaratul nul jaratul ngay interpreté xam nga yooyu mënuñu tourner ñu wax ko xamal ñu ko ba pare tourné waat tey jii bëgg doxaat ci nit ñi bëgg wax ni Macky Sall war na mën a def troisième mandat. ban deuxième temps boobu la ñuy maye de. mbir mi waxul ay quinquennat dañu deux mandats constitution bi prévoirul. <laughs> voilà le mandat de de de sept ans. raison de plus. Mm. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs moom mu génn ci ay parolam mm. wax ni constitution bi leer na moom joxe ci avem kon tey jii waru cee dellu ginnaaw. Mm. te loolu du Pastef lay faire face du taxaw du PDS il fera face à la population sénégalaise. mais mais mais mais euh, gis nga fii kan moom mën a tere. Macky bokk. te kenn terewul woon. ki mën a euh, tere Macky bokk yow la coow li bari woon na mais Abdoulaye Wade bokkoon na. dama ni ki mën a tere coow li bari woon na mais Abdoulaye Wade. bokkoon na bokkoon na mais gagné nañ ko. waa mais tamit Macky kon peut mën na bokk. voilà mais mënul bokk chaque chose à son temps mënul bokk fi réew mi toll fii nit ñi sonn dette bi yokk sénégalais bu ci ne ñu ne la lii nga daan fay deux cent mille francs nga ngay fay. Mm. léegi sept cent mille francs lañ ko yóbbu. duñu wax ay taux de croissance un chiffre deux chiffres yoo xamante ni kenn mënu ko comprendre. Mhm. nit ñi di gënoon dool pouvoir d'achat bi di gën a baissé nit ñi di gën a feebar mënuñu fayu te chaque jour ngay dégg détournement de milliards. Mhm. chaque jour nga dégg dem nañ ci kër diw fekk fa un milliard. Mhm. fekk fa huit cent millions. ñenn ñun dinañ bàyyiwaat nguur gi mu jiite ñu loolu yow doo ko nangu. man duma ko nangu sénégalais yi duñ ko nangu. mais tamit bu fekkee wóolu ngeen seen bopp wóolu ngeen seen mbër di Ousmane Sonko. non du question wóolu seen mais dama si làmb ji ak président Sall ngeen xool non non il faut non non. mais du bokk. mag mais parce que kon yéen da ngeen ko ragal moom moo modifié constitution bi. mais yéen da ngeen ko ragal ak sénégalais yi non du question ragal ban ragal Macky Sall. waaw élection kon ngeen bàyyi ko mu bokk. ngeen duma ko xam nga bàyyi ko mu bokk du ñun ñoo koy bàyyi mu bokk. daa am loo xamante ni moom moo ñu tënk. moom moo ni du bokk mais moo koy moo mooy décider. egguñ foofu. waaw foofu. Hmm. egguñ fa mais dafa am loo xam ne daf ñoo tënk. Hmm. moom moo ni moom du bokk. xam nga moom il est le seul candidat boo xamante ni du bokk du bokk ci élection yi maanaam ñu ngi jëm ci ay yoo xamante ni sénégalais yi dañuy ñëw tànn du ñu sanctionné il est le seul candidat à qui la constitution a éliminé d'office moo tax dialogue bi du pour sax moom. dialogue bi pour peuple bi la. dialoguewuñu pour moom. Mm. muy xool lu ko neex ak lu ko naqari. kii bokk ak ku dul bokk. di ngeen dem ci dialogue bi loolu. passif man personnellement mënuguma cee wax xam nga lu tax. Mm. tooguñ ci waxtaan wax ban décision la ñuy jël pour dem ci dialogue boobu. Mm-hmm. fekkee ni mën nañ koo transition dugg ci loolu. parce que ñun lépp lu ñuy def dañ koy waxtaanee période Covid bi bi mu xewee. Mm-hmm. avant ñuy dem dañu laaj consulter ñu dafa amoon consultation. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu joxe suñu avis parce que c'était pour l'intérêt du peuple man dañ ma consulter. Mhm. consulter samay moroom coordonnateur ñu daal di dem wuy ji. Mhm. bañ fa demee la ñu wax tey ji population bi gis na ko. Mhm. biñ demee Ousmane Sonko wax na ni lii am na njëriñ lii amul njëriñ lii néew na nañu yokk lii et xaalis bi nañ ko gérer en toute transparence yóbbu ko ci ñu ko yelloo. l'histoire l'a donné raison. plus de mille milliards ba léegi amul benn bilan bu clair ki ko dénkoon mu bokk ci ñoom. Mhm. taxaw na ne du def bilan kon jox nañu ñu raison luy wane ni ñun ay caaxaan duñ ci dem ci lépp lu ñu dem rek am na lu ñu yëkkati c'est parce que dafa fekk mu nekk intere sénégalais mhm. moo tax dialogue bii nii nii man gisuma sa raison d'être dans la mesure où suñu responsable yu bëri nga jël leen tëj leen ci kaso bi. tëj d'honnêtes citoyens yu deful dara ci kaso bi tourné woo leen naan leen ñëw leen jago lan la ñuy li ñu war a waxtaanee mooy suñu processus électoral bi li mu war a wax nit ñi te waxu ko ñaari occasion mayoon ko pour mu wax ci muy 4 avril bi ak euh, fin d'année bi ni passé hmm, mooy mu ne sénégalais yi du ma bokk wala damay bokk nit ñi xam fan lañ féete mais dialogue bi pour man ay tappale la kon Pastef pare wu faa dem su ma la déggee. non mënuguma la cee wax lenn mais li ma la mën a. ko waxagul dara waxagul dara. bureau bi constitué gul pour wax dañuy dem wala lu dem mais man sama appréhension personnelle. Mhm. mooy at tappale la te jàpp ma ni dinañ dem di dialogue ci koo xamante ni jël na donné citoyen yi bokk si ñun tëj leen ci kaso bi lan moo tax li jar a dialogue duñ si dialogue mukk ci dëkk bi. Mhm. dañuy dem bu ñu waree Sénégal bu amee ay ressources ñu war ko exploiter nga xam ni man dama ci am wàll yow am ci wàll. sa njaboot am ci wàll sama njaboot am ci wàll duñ ko def dañuy dem retrouver wu en catimini signer des contrats léonins lenn li jëm ci ñuñ ko signer lenn li jëm ci seen poche. Mm-hmm. mais bu demee ba nga xamante ni am na loo xam population bi taxaw nañ ne leen du fi am mu metti lool ci ñoom ñu ne ñëw leen ngeen dialogue man gëwma dialogue parce que ki ne dafay oote dialogue moo tiim ne opposition bi je vais vous réduire à votre simple expression. Mm-hmm. ci logique boobu la nekk. kooku kooku. mais ci Assane tamit ngeen jaloge pour pour le peuple sénégalais pour askan wi. très bien dem leen toog tamit déglu li muy wax. dialogué pour ngeen teg seen i conditions. dialogué pour même doo bokk bi sax mais ngeen teg seen. condition sur la table waaw moo tax ma ne la mënaguma la ni. ñun hmm. dañuy dem ci dialogue boobu wala duñ ci dem mais li ma la mën a wax mooy. mais da ngeen a dem nag li ma am na loo xamante ni bu ko jaree dañ ci dem bu ko jarul duñ ci dem mënuñu di ñëw di dialogué ci ay caaxaan. dialogue dafa war a leer wala ñi bu dialogue leerul. wala bu ñu libéré di ngeen bokk dil wala piège. parce que ñun dañoo gis ni ci ay caaxaan la ñu nekk. Mhm. ñun dañuy réfléchir quoi su jaree dialogue du dialogue bu jarul dialogue mu ne day dialogue. maanaam da leen di jéem a piéger. voilà te loolu duñ ko nangu xam nga boo naan nit ñi ku gedd sa yaay aye loolu waxuma ko de moom moo ko wax. oo nañ pour ñu dialoguer léegi nag ko bëgg a ñëw nga ñëw mais dialogue wuñu pour moom bu dialogue doon am sax dañuy dialogue pour réew mi. waaw mais foofu laay élection yi nga xamante ni xaaral ma ñëw askan wi ñoo leen ñor ñëw. élection yi nga xamante ni tey jii. Macky moomu réew mi processus électoral ngi ñëw waxaguñ ci parrainage bi naa nga mën naa fii la xari jaar. mais jaloog boo xamante ni dialogue politique boo demee ba ci say wax ñu ciy dégg ni euh, diw bu ñëwul duñ ko amnistier parce que loolu la ñu sous-entendre ainsi de suite da ngay xam ne lii dialogue politique la en fait nekkul loo xamante pour askan wi la askan wi lu ñu soxla mooy mu ne leen day bokk wala du bokk te warut bokk. ngal la waaye na respecté loolu mën mën ngeen ko waxtaanee ci dialogue bi tamit Assane c'est possible. li ma la mën a wax daal mooy ñun. waaw pareeguñu pour dem ci dialogue boobu. Hmm. Pastef yéen kon kon askan wi taxu leen a jóg non dama ne la Pastef. yéen tamit Assane. non xaaral ma expliqué la rek non dama bëgg ngay déglu sama yox pour ma bañ wax loo xamante ni. Hmm. du Pastef moom moo xam dama ne la. waaw Pastef prononcé gul ne dafay dem ci dialogue boobu man ni ma ko jàngatee mooy dialogue boobu ay caaxaan la. Hmm. amul njariñ. am na ñu commencé am na ñu commencé teg ay condition comme je pense waa PDS nee nañ. peut mën nañ dem si dialogue bi. Mhm. mais dafa fekk président Sall wax ni. condition mooy président Sall wax ni du bokk 2024 ñoom dinañ mën a dem si dialogue bi. waaw xam nga xam nga tey jii ku ci mel ni PDS ñoom dañoo am candidat. Mhm. muy Karim Wade. Mhm. taxaw aussi dañoo am candidat muy Khalifa Sall. Mhm. te tey jii ñun suñu souhait mooy buñu ñu sañoon ñëpp nekk candidat képp koo xamante ni citoyen nga nga nekk candidat jëm ci élection yooyu sauf. le président de la république parce que constitution bi écarté na ko mhm. léegi nag ñi ngi wax waxu si xalifa Sall loolu lañ ko bëgg a def Karim Wade PDS dañu pour ñu réviser procédure am oui. nga te chaque structure chaque formation politique ay objectif objectif am mooy mu jéem a laaj nguur gi donc am na loo xamante ni loolu ñoom ñoo ñoom la concerné bu ñu décidé ne dañuy dem ci dialogue wala wala wala duñ fa dem mhm. mais ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk Pastef ñu nekk di sibbir lu ne mu ngi waajal nemmeeku tuuram te xam naa ni buy départ gendarmerie di ko topp. Mm. feneen ak feneen mayuñu ko mu exercer ay liberté am yu ko yoon may kooku man yaakaaruma ni mooy ñëw taxaw naan dafay dialogue yaakaaruma ko. ak hmm. ñi nga xamante ni est-ce que tamit euh, Sonko moom tamit du xoolaat bopp parce que dafay bàyyi bañ fixeel ko ay datu procès mu créer benn euh, tournée. moom rek mooy dem moom rek mooy dem nemmeeku ah. na lu yàggul dara. Hmm. Déthié Fall na. Hmm. mais mais mais dañu seetlu lool si ay dañ leen di bàyyi ñu def seen nemmeeku tour ni mu waree. mais ñun ñooy ñan ba waruñoo jug doxi suñ soxla. fan la réew mi teg loolu xëy barricade buntu kër jàmbur sa jabar du génn kenn du génn sa doom du jàngi amul fenn fu ko yoon bind yow mii di wax ak man xam nga ni injustice la keneen ak keneen xam na ni injustice la ba ñu xam ni ñii dañ leen a sonal dañ leen nit ñun li ñu subir amul benn opposition bu ko subir ci àdduna gis nga li ñuy nas ni mhm. objectif bi lenn kese la Ousmane Sonko du bokk loolu rek mooy objectif. objectif Macky Sall mm. forcé boppam sénégalais yi. forcé dem force bi mu forcé sénégalais yi boppam nag loolu sénégalais yi ñoom ñoo war a taxaw faire face à cela parce que sénégalais yi ñàkk ñu fayda. Hmm. objectif nemmeeku tuur lan la. <laughs> nemmeeku tuur loolu yoon mooñ mais ku ci nekk am nga droit dem saafoonteeg say say say ñooñ nemmeeku tuur dem xool say militants say sympathisants duñ toogee. Hmm. duñ la fal rek nga dem nga toog doo oote parti politique taxaw chaque jour nit ñi di. dajale xaalis di la jox war nga mën a dem xool base bi ni muy doxee cellule au cellule on est représentatif. sur toute l'étendue du territoire président Macky Sall bu defee tournée économique kenn du wax ngeen dal si kawam yéen. ne lii ne lii du tournée économique tournée politique la. mais mais yéen waaw waaw quel est votre problème yéen tamit. waaw déglu ma waaw. am na tournée économique am na tournée politique. waaw. sénégalais yi ñoo président ña ko faloon day demaat di saafonteeg ñoom di xool si lu mu nekk ak projet da ngaa gis ngeen ne du ngeen ko ko nangul yéen ndax da ngaa gis mhm. fu mu dem mhm. patriote yi baare wala sànni xeer ne du fi am wala nangam nangam donte mu ngi def ay tournée économique am mhm. ñu jàppee ko ay tournée politique waa léegi ñun bu ñu yéen ko jàppee tournée politique. mais bien sûr. mais moom nee na tournée économique. très bien chef de l' état je am na si droit. moom la jox réew mi am na ci droit mu mënti demee. Mhm. gisoo ñu teg ko benn fitna gisoo ñu def naka su dul noonu on est toujours resté discipliné nekk suñuy activité ñun tooñ ñu kenn lan moo tax mënuñu ñoo bàyyi ñun aussi ñu def li nga xamante ni yoon moo ñu ko may day gumba mais du yoon. Mhm. ci loolu moom la ñu war a wax lan moo tax parti bii di Pastef ak seen leader Ousmane Sonko. mënut a génn dem doxi soxlaam. parce que lu tax gendarmerie di mobiliser. Mhm. toutes les ressources du pays wala police di ko topp. Mhm. village au village. lan moo tax bu duggee fenn fi ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete si ñoom kobos leen cokkaas leen. Mhm. lan moo waral loolu fa ma xam nga xam nga xam nga dëgg bu jotee da nga koy wax. pour que ñëpp xam ni fii la dëgg gi nekk. te sénégalais yi xam nañ lan mooy dëgg mooy Pastef dañu koy tooñ à chaque instant te ñu war a wax du wax. Mhm. gis nga jàmm ci la lépp xaj lu yàggul dara maa ngi dégg Idrissa Seck <laughs> du ma bëgg sax tudd turam mhm. mu ngi naan ci ay kàddoom am réew mu am jàmm na fexe sàmm jàmm jooju mhm. bu dof dofloo ba ñàkk jàmm jooju dina jaay lépp loo xamante ni moom la am pour amaat jàmm jooju te du tere mu am ko gis nga kàddu yooyu. Mhm. kàddu yi am am am solo la. Mhm. moo tax ku nekk daf ci war a bàyyi xel képp koo xamante ni ci réew mi nga ne di fi yeewoo muy kilifa diine yi kilifa aada yi responsable yi toutes les force vives toutes les couche dañu war a bàyyi xel ci loolu gis nga réew mi mënul mënul nekk dans une instabilité. Mhm. yàlla na yeex ñaanu ma ko yàlla kenn di mucc di bàyyi moromam mënta nekk c'est une impossibilité absolue te loolu buñ ci jëmee ñi war a wax. dañoo war a wax ki yor yatam toujours di dóor da ko war a téye ne ko bàyyil dóor bi yaa tooñ waaye ku ñuy sës sës sës ba ci miir bi mu riposte nga ni dafa bëri fitna nañu waxante dëgg rek parole yooyu du lu sincère. Hmm. gis nga am na benn auteur euh, philosophe Jean-Paul hmm. Sartre. Hmm. mës na attirer attention ci ñi nga xamante ni ñooy bindkat yi nasaraan yi. ku ci mel ni ay ay ay Goncourt ay Flaubert. mooy euh, commune de Paris bi fa massacre. sanglante bi di fa am dafa ni je tiens les Flaubert et Goncourt responsable du massacre qui la commune de Paris parce qu'ils sont restés inertes sans même écrire une seule une seule pour mmh. l'empêcher mm. maanaam am na dëkk fu muy jëm ñi war a wax bu ñu waxul ñi war a bind bu ñu bindul pour wasu ci àq luy xew la responsabilité sera engagée maanaam ku artuwul di nga àtte te Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk son ko wax na ko bërki dem nee na c'est un homme de paix moom nitu jàmm la waaye ku ko bëgg a faagaagal alxuraan moo la ko njëkk a may suñu yoon njëkk ñëwaat may la ko da ngay résister ñun ci loolu la ñu nekk. ci résistance boobu ngeen toll. waaw ci loolu lañ toll. tey jii ñu gis euh, Idrissa Seck yëkkati ay kàddu parce que ñëpp actuellement en fait jàpp nañu fi réew mi toll ci wàllum politique que Ousmane Sonko moom mooy le chef de l' opposition euh, loolu la ñu gis. en mm-hmm. tout cas euh, si at yi mujj deux wala trois années surtout bi nga xamante ni Idrissa Seck dafa fekki président Sall ngeen gis ni fan yi génn na ne c' est lui le chef de l' opposition tant que demuñ ci beneen élection présidentielle sénégalais Euh, Idrissa Seck il reste le chef de l'opposition loolu ngay si tontu yéen waa Pastef <laughs> non ça me fait rire quoi Idrissa Seck moom mooy le chef de l'opposition waaw maintenant na génn Ousmane Sonko génn na génn rek Ousmane Sonko génn ñu xool kan mooy chef de l'opposition loolu la ko Ousmane Sonko tontu xam nga ki nga xamante ni. Mhm. yow yaa ngi woon ci opposition. Mhm. balaa ngaa nekk chef de l'opposition day fekk nga nekk ci opposition. Mhm. Idrissa Seck du opposant deful daray opposant ba war a nekk chef de l'opposition. ki nga xamante ni après bi élection yi passé nga ne yaa nekk deuxième ñun ñu nekk troisième nga ne yaay de l'opposition ndeke pendant quinze mois yaa ngi discuter ak nguur gi. Mhm. ci li say naataangoo yëgul. Mhm. li même lu ëpp si say part sa say militant yëgul ngay nas ay dil nga ne yow kooku yow yaay chef de l'opposition dafay nax boppam ma di sa seeg fourbe ko jàppee. Mhm. xam nga les fourberies d'escapin bi Molière bind les fourberies d'Escapin mm. demal nga lire ko mm. Idrissa Seck kooku laa ko jàppee c'est un fourbe dafa jàpp ni moom moo gën a muus senegal te day nax boppam day saaxami rek te dara newul ci gémmiñ beneen tamit mu ne boppam lay nax mu ne mu ne mu ne dem na visiter Ousmane Sonko boobu tamit yéen waa passé foog ngeen leeral ko maanaam Idrissa Seck nee na dem na euh, kër Ousmane Sonko seeti ko mhm. waxtaan nañ après demaat nañ mu mu déclaré ko mais mhm. nag actuellement li war a leeral mais les dessous de cette visite lan la fa war a wax ak Ousmane Sonko. non la mu war a wax moom. xaw ma ko. waaw mais yéen leen affaire bi jaaxalu leen. man xaw ma ko pour pas des questions yéen waa Pastef hmm. jóg di dem ak di ñëw. ay mbiru boppam rek ko ko ñor. seeti seen leader. war na leen a ñor aussi. waaw moom laa la wax dama ne la. ki mu seeti ndeyu mbili gi. bu war waree wax ak nit ñi dina wax ak nit ñi. nous on lui fait confiance. yaa ngi muy dégg gisoo ne Sonko dafa war a wax ak nit ñi. si bien sûr leeral leeral giseem ak us ak sa Idrissa Seck. sa Seck dina wax ak nit ñi. so Ousmane Sonko dina wax ak nit ñi. surtout Idrissa Seck image bi sénégalais am si moom. waaw ak Sonko <laughs> image bi nit ñi am si moom. mais ba léegi. léegi mu ne moom dem naa seeti Sonko. waaw bu fekkee Sonko génnul. leeral lu waraloon visite boobu ak lu ñu fa wax. ça peut poser problème. très bien voilà. xam nga ba léegi. Mhm. yaa ngi gis confiance bi sénégalais am ci Ousmane Sonko ñoo ngi koy am ba léegi. Mhm. ba mu génnee ci loolu lan nga gis ñu lancé suñuy bracelet mhm. takk benn bracelet jomaay takk mu ne na ko ku nekk jënd mhm. ci quatre jours mu jeex kon du loolu moom mooy dindi confiance bi nga xamante sénégalais am nañ ko ci moom mhm. maintenant sànq daa am lu ma la wax dama ne la en politique il y a des temps nous nous sommes très bien encadrés surtout en matière de communication xam nga ni Ousmane Sonko fu mu génnee wax nit ñi na xaali gongo mais mais d'habitude nag Sonko parfois gars yi dañuy génn tey wax suba mu def déclaration de presse. woo presse bi wala mu nekk si Facebook def live mais lan moo tax bi Idi waxee rek génnul leeral a ah, askan wi surtout ñu ko bëgg sonn si Sonko topp ko lii laa lii moo indi woon Idi foofu bala ñu yaakaar ne dil dafa am si biir waaw dil waaw moo tax moo tax male na ah waaw moo tax xam nga sànq da nga lii dafa repondre da nga répondre li ma la jot a wax sànq mm-hmm. dama ne la en politique mook démocratie ñooyam il y a temps heure bi ngay génn wax ak heure bi nga dul wax. Mm. te ba léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. te ba léegi ci logique boobu la ñu nekk. ba léegi. Mm-hmm. ci logique boobu la ñu nekk ñun li ñuy def xam nañ ko bu baax a baax a baax. waaw ah, période bii li opportun mooy li nga xamante ni nas na ko muy nemmeeku tuur bi gis nañ ni nee nañ mu ngi dem nemmeeku tuur ñu teg procès boo xamante ni écart bi. une semaine la. waaw parce que foofu laa jëm si woon. voilà procès Mame Mbaye Niang bi 8 février. aussi fixé nañ datu procès wu Sonko Adji Sarr. est-ce que yow jàpp nga ni Sonko mën na rëcc si si si kii yooyu en fait. mën na rëcc lépp li ñu teg. mais bien sûr man gisuma. appel Mame Mbaye Niang Sonko diffamation. voilà non gisuma lu ñu mën gisuma lu ñu fi lu ñu mën a incriminer Sonko ba denc ko ci kaso bi. Mhm. wala empêcher ko mu bañ a bokk ci élection yi. Mhm. procès Adji Sarr bi ay caaxaan la. procès Mame Mbaye bi. ay caaxaan la si ay caaxaan la. Adji Sarr nekk sénégalaise. non non non wax xam nga. xam nga tuumaal sénégalais. je suis pas en train. justice war a war a war a war a war a. je suis pas en train dafa naa je suis pas en train de remettre <laughs> en question. <laughs> la citoyenneté de Adji Sarr. Mm. dama la bëgg a wax ni. Mm. ay caaxaan la. maanaam ay tappale moo ko lal du début jusqu'à la fin. Mm. c'est-à-dire c'est un complot ourdi cousu de fil blanc loolu dafa leer. mais loolu justice moo ko mën a leeral. très bien waaw moo tax ma ne la. du Assane yow yaa koy leeral. wala waa réseaux sociaux ñoo xam nga li may wax xam naa ko. dama ne la procureur dañ ko tegal ay éléments yu leer. Mhm. li ci gën a xaw a doy waar mooy audio yi nga xamante ni Adji Sarr def na ko taxal ay nit ci nguur gi ñu ko mu ne maa ko wax ba léegi déggoo ñu woo ci ñooñu kenn mhm. te pourtant Ami Collé Dieng def na fi ab audio. wax lu jëm ci président de la république Macky Sall ñu yóbbu ko kaso toujours damay ñëw di indi dix deux poids deux mesures bi nga xamante ni moo am ci justice bi certificat médical ñëw attesté ni fii viol amu fi. Mhm. kii di Sitor Ndour certificat médical attesté ne viol am na. Mhm. soo gisee tëj nañ ko mais tijjiwaat nañ ko. Mhm. Idrissa Seck euh, comme astafurla Cheikh Yérim Seck certificat médical moo tax ñu tëj ko Ousmane Sonko chef certificat médical bi dañuy viol amu fi. loolu rek dafay écarter thèse bi nga xamante ni moom lañ koy accuser mm-hmm. lan moo tax ñu continuer ci procédure bi di dem di dem di dem di dem di dem te bu nekk loo xamante ne ay caaxaan la ba pare li ma ci gën a métti mooy ñu tudd ci ñu bëri te kenn oowu leen. mais loolu lépp dina leer ci procès bi kii. mais dañ leen war a oo. loolu moo war a nekk loo xamante ni lu njëkk la. est-ce que yéen tam waroo leen a d'accord sax procès bi am euh, Ousmane Sonko. non setal deram comme que affaire bi complot la complot bi feeñ leer nañ si si. procès bi am. Ousmane Sonko loolu loolu loolu loolu moo njëkk a nekk suweem. waaw parce que moom la njëkk a wax. mais dama la bëgg a wax ni. mais lan moo tax kon ngeen ne procès yi ñu teg c'est pour. gàllankoor Ousmane Sonko alors que ñu ngi juger chaque jour les Sénégalais. waaw li ma la si affaire viol ak leneen ak leneen. on a vu le cas Sitor Ndour wax juger projet tappale la parce que dañoo gis ni complot la sénégalais yëpp xam nañ ni lii nii complot la am na ay fait ay éléments probants yoo xamante ni wane na ni lii complot la. Mm-hmm. ba léegi ñoom ñu ngi persister di dem. donc suñu persister di dem nag ñun dañuy dañuy am dañuy ñaaw njort ni am na loo xam moom lañ nar. Mm-hmm. mooy jéem a tëj Ousmane Sonko wala empêcher ko mu nekk président euh, mu nekk candidat ci élection yi di ñëw. Mm-hmm. loolu nag nangu ko ñàkk fayda la ak ñàkk la. foofu laay waxee ak yow. Mhm. maanaam le fait que dossiers yi. nekk ay li tax ñu yëkkati ko moment bi voilà. c' est des dossiers politiques ñaata dossiers ñoo fi jaar kenn laalu ko parce que ñaata plainte la def ndey kumba. kenn traité ko kenn laaluñu si benn ñaata plainte. Mhm. Pastef ñaata euh, Mariama Sagna lu tax ubbiwuñu dossier am suñu siège bi ñu saccagé lu tax ubbiwuñu dossier am ak ay yeneen ak yeneen lu tax chaque jour. Ousmane Sonko seulement moom la ñuy jël di yóbbu c'est parce que c'est pour de fins purement politiques politique nag politique moo koy faj gi nga ni ñu def xalifa Sall def ko mm-hmm. Karim Wade mm-hmm. xam nga dañu naan ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul ngay daw loolu ngeen di bañ ñun nag ku robin ndey rey sa boo gisee lu ñuul man du ma ne da daw de li nga Demba Touré doon wax mm-hmm. ak Ousseynou da ngay taxaw jàkkaarloog moom loo am nga jël ñun foofu lañ toll ngeen am procès euh, encore le 16 affaire Adji Sarr ngeen ne da ngeen di résister naka ngeen bëgg a résister te ñu war a organiser peut-être résistance bi ñëpp ñu ngi ci biir kaso bi. ah non ñëpp newuñ ci kaso bi de. ah trois cent cinquante et quelque. Ah. te ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu euh, arrêté duñu ay n'importe qui ci Pastef bokkoon nañ ci ñiy doxal. Pastef bu baax dafa am lu nit ñi lu nit ñi di lu nit ñi di jaawale. waaw tëj nañ ñu bëri ci kaso bi mais am na ñoo xamante ni bokkuñ sax Pastef. ay sympathisants lañ te ay citoyens modèles yu bëgg dëgg bi changé ñu bëgg ak faagaagal nit ñu taxaw résister nous sommes set million de sénégalais ñëpp am projet boo xamante ni dañ koo gëm muy le projet ñëpp am loo xamante ni le fameux projet <laughs> ñëpp am loo xamante ni le fameux am loo xamante ni dañ koo soxla muy changement mhm. taux de chômage bi di gën a yokk ressources naturelles yi gisatuñ ci dara jeunes yi di xeex di reyante seen biir gis nañu yàggul dara di xaw mbooro entre pêcheurs yi bu ñu demee ba Sénégal ñun ñu bokk dëkk bokk territoire ki naan sa moroom doo napp fii du ma napp fii en lieu et place bato tubaab yi ñu ngi ñëw yóbbu ressources halieutiques yi ba dara amul te kenn waxul. Mhm. nit ñi nappatuñu jël gaal gi di dem Espagne di dee ci géej gi. nit ñi commencé amatul lu ñuy def agression bi di gën a bëri jeunes yi jàng yor seeni diplôme mënoo am stage yu jours. Mhm. nga promettre leen ay emploi loolu yëpp dara amu ci ñooñu pare ci yow de surcroît constitution bi ne doo bokk nga war a bàyyi réew mi ngay insinuer ni doo dem da ngaa war a toog da ngaa war a forcer te emploi amul suñu politique économique baaxul dette bi di gën a yokk sénégalais bu doon fay deux cent mille léegi sept cent mille ngay fay mais yaa xayti mais daf ñu jaral lu nekk à ce que Macky Sall jóge fi. il faut résister il faut résister. mais beneen loolu lañ euh, temps bi dab nañu pratiquement trois minutes moo ñu dese euh, di beneen kii muy tentative d'assassinat gis nga li fi xewoon ci procès Mame Mbaye Niang Sonko bi Sonko nee na si moment bi nga xam ne euh, mu ngi woon si loxo force de défense et de sécurité yi dañ ko sotti liquide gis nga coow li mu juróon coow li bari bari bam mu ne euh, jër na échantillon bi yóbbu nañ ko à l'étranger voilà ñu ngi xaar résultat yi récemment il juste deux ou trois jours nee na nag résultat yi ñëw na euh, dina génn wax ak nit yi indi preuve yi wane ni dafay insister ci tentative d'assassinat que force de défense et de sécurité yi dañ ko bëggoon assassiner waaw waaw lool loo lu ngeen si wax yéen. waaw loolu li ma ciy wax mooy Ousmane Sonko def na communiqué. Mhm. te bientôt dina def dina joxe rendez-vous pour waxtaan ak sénégalais yi. Mhm. pour wax naka la gisee mbir moomu. donte mhm. wax na ko ci page Facebook ndax bi muy bind yaa ngi gis dañu sénégalais yi. mu ngi jox rendez-vous fële ca Ziguinchor. ci mm-hmm. projet yi nga xamante ne war na koo lancer. Mm-hmm. et très bientôt dina wax ak ñun ci par rapport ak analyse yooyu nga xam ni génn na. génn ñu versé woon ko liquide boobu. ndax dañ ci tëj koo xamante ni jotewul ak loolu dara mu yarga si ma ci jaare di wu njabootam. Mm-hmm. parce que jeudi passé seeti woon naa ko. seeti woon naa ko rëbës. ci kaso bi waaw ci kaso bi. chaque jeudi dañuy dem ñu seeti leen. ñu fa tëj ñëpp. pour xool naka lañ toogee. di wax ni kooku deful dara Ousmane Sonko ci boppam moo ni kooku bu ko xooyaloon dara jox ko mu naan ko c'est un patriote. Mm-hmm. bokk ci ñi gën a jege Ousmane Sonko. donc nag ñoom li ñuy tiit di dal la toog rek ñu xaar Ousmane Sonko dina ñëw def conférence de presse wax ak sénégalais yi ci mbir moom mm. loolu moom y' a pas cherché midi. mais gars yi neen c'est trop facile de. waaw c'est trop facile nañu toog ñu xaar rek nga taqal sa mbubb lu la neex ñëw def say kii. waaw indi say résultat amul contre-expertise y' a rien. waaw loolu tout mal aussi les forces de défense et de sécurité. c'est très grave l'assassinat. loolu loolu egguñ fa. ah est-ce que Ousmane Sonko xam na li muy def actuellement que c'est très grave. li muy tout mal force de défense yi. lu gën a grave am na fii ci réew mi. Mhm. fii lu fi gën a grave am na fi te nit waxul. bientôt dina jàkkaarloog sénégalais yi nañ toog xaar ko. tegal ñu ay preuve ci table bi. tegal ñu lu ñu mën a xam lu sénégalais yi mën a dégg. waaw yéen ñi ànd ak moom daf leen a tegal lu seen loxo. lu ngeen mën ñun lépp loo xamante ni ñoo koy def ñun ñoo koy defandoo ñun Pastef. Mm. teg teg na lu wóor seen loxo. si Ousmane Sonko lépp lu muy def lu wóor lay teg suñu loxo. depuis ba ñuy ànd ak moom ba léegi 2014. mosul mm-hmm. def loo xamante ni wóorul. mosul mm. def loo xamante ni consulté. yéen yéen amoo leen mosul def loo xamante ni ñun dañ ci am mbetteel. confiance bi am entre Ousmane Sonko ak patriotes yi ak sénégalais yi loolu lu étroit la lu étroit la et c' est c' est une comment dirais je c' est liaison fort lu kenn mënta dindi moom ak surtout du ma ne sax mook patriotes yi mais mook sénégalais yi mook ñenn ci sénégalais yi. mook sénégalais yi la ah, yëpp nag ànduñu moom. waaw loolu non kenn àndul kenn mënul ànd ak ñëpp. ñëpp mais bu ma nee mook sénégalais yi am nañu ànd ak moom mook sénégalais yi. waaw je parle des sénégalais. mais hmm. n'empêche wax dëgg-dëgg la laaj. mais la majorité des sénégalais sont avec le leader Ousmane. la majorité si. <laughs> loolu moom dafa clair la majorité des sénégalais mais <laughs> xam nga loolu mais mais c'est facile nga génn gars yi topp la ak yooyu mais si urne yi. sénégalais ah ci urne yi lan nga mujj mais ci urne yi lan nga mujjee gis ci ci ci élection yi nii passé. Hmm. ñaata collectivité locale lañu lañu la ñu jël baat leen à plat de couture. élection législative yi lan nga li nga gis assemblée da nga koo mës a gis. nañ xaaral président neel neel Ousmane Sonko amu ci impact. ba présidentielle 2024. dinañ xam ba xam majorité sénégalais yi moom la ñu àndal. waaw la déet léegi 8 mai di ngeen ji temps bi jeex na 8 mai. non loolu Sonko dafay tëdd këram comme d'habitude. loolu loolu yónni ay avocat non wala dina dugg otoom dem wuyu ji. wala def indi ay jafe-jafe gars jël ko këram. càq càq ko FDS loolu mënaguma cee wax. lépp loo xamante ni tey ngeen wuyu ji rek loolu lépp loo xamante ni xam nga bii passé hmm. euh, demul ay avocat am euh, dem nañ. lépp loo xamante ni waxtaanee nañ ko. Hmm. rek moom la ñuy def incha allah. Hmm. loolu moom mënaguma cee wax. voilà ñu ngi leen di xaar wii mais. wala kon Assane Diop <laughs> ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi ak yi internautes yi ñu doon bàyyi xel. waaw bon di remercier waat sénégalais yi rek. Euh, di jégaluwaat ci kàddu yi. bu fekkee wax naa fi loo xamante ni luy. metti sénégalais yi. loolu da nga ragal Macky jël si la man du Macky dama ne da nga ragal Assane ñu jël la. bu fekkee waaw wax naa fi loo xamante ni. sénégalais yi sénégalais yi sénégalais yi. mais Macky si sénégalais yi la bokk. non boobu moom <laughs> entre gu entre guillemets lu ñu ragal. Mm-hmm. xam nga lu tax ma wax la lool. Mm-hmm. ñun on est né dans Pastef ñun musuñu politique dañu jàng am suñu diplôme gis parti politique buy émerger. Mm-hmm. ñu am yaakaar ci moom ñu adhéré. on est né là on euh, alete la là-bas tété là-bas. Mm. pouponné jusqu'à tenir sur nos pieds. Mm-hmm. Pastef rek la ñu xam projet bi la ñu gëm Ousmane Sonko la ñu gëm. Mm-hmm. te suñu bakkan lañ ci teg parce que dañu gëm ni réew mi mën na changer ak moom. ak Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko. di masawaat sénégalais yi. Mm-hmm. ci ñi nga xamante ni seen njaboot caabi féete na leen ginnaaw te teguñu ko dara ci lu dul ay caaxaan di leen wax nii rien n'est éternel dans cette vie et que loolu dina jeex ci ay nettal lay mujjee. voilà asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu koy remercier en tout cas maa ngi koy remercier bu baax a baax Assane Diop nekk coordonnateur départemental bu Pastef Rufisque nekk premier adjoint au maire de la ville de Rufisque donc maa ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité di leen remercier yéen suñuy auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10h à 11h ak internautes yeeg téléspectateurs yi Ndeye Comba Moreau 11 euh, ci beneen émission beneen thème ak beneen invité di remercier également waa régie émission bi mën ngeen ko suivraat ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officielle ba samedi prochain incha allah jaa jëf.